bismillahi irrahmani irrahim yàllaa la may dund ku wér may ko jaamu gu wér mbaa nga fay ko borom boo dul mayit war fay ku lebal boo ko may lëfta may ko mu doy la bon fayoo ko may ku moy ay dal na képp ku am ak jot te jéemu la jot mboolem njariñ lu ko raw tey rëccu moy gumu moy ku lay kobos aka woo ba ngay gone yow ba jàpp tey ji nga war ko geesu faale ko cey yàlla ngi lay soññi ak yonneen ba ak sa sëriñ ngir bëgg ngay waaju dundal diine juy fegu ay pesab sëriñ jox na lab yóbbal bu doy soga dem xamal la ngir ma bu wér soññul te soññi ñu wey koo gis xamal ko boroomam yàlla yow te taxaw ci diine jonn bañal bul def ku àdduna jey ku xam lu wér ceng biir ak biti kat la ca gën jëf-jëf ju wér ceng biir ak biti noonu la day te xam nga xel ne dee day ñëw te àdduna ji day wéy talaaxira ngay teg bët bu wér ci sa pay dalal di jëf lépp loo soppu payam ko ne gis te dal di daw lépp loo bañ ak payam wéye wéy way jot na nit ku wayul buy rax bi jaawa moo war ne cay li ma dal moo war ne way sama ndey mag day amuk way ndaxam ab liira mag ku wayul ngir way na cig nàmp way ci dëgg fi may way wéral nu cëng tamay nu way tegal nu ca way setal nu wecc ci bon bon yépp jox nu tubay musal nu ci bëgg lëf loo xam ne lii du ngërëm rekk ak ndigal def nu soppeeb yàlla faw bu rëy musal nu ci bëgg lëf loo xam ne lii du ngërëm rekk ak ndigal def nu soppe bi yàlla faw bu rëy naa jëm ci yàlla bu wér saa bi jëm ci bu wér samay cërit jëm ci biir ak biti may ku ñu roy ku nekk foo xam ne mboolem yiwu nekk faam te jëm fu dee ful forew yiwu farlu war na la kay àdduna kër gu ñuy sàkkoo lu nekk ka am alaaxira di këru pay jëf ju yiw du fa doy te doon te dund nga junni at di jaamu bu wér du tax bu ñuy fay ngay naw pay ga luy pexe ay ngay dund loo xam ne lii nag xaaju ko jege sax te sànk ci at yu takkoo takku yal na nga yey yow yàlla boo far sax yàlla yal na la faf yaram yaram nu te may nu doylu walli lay dëkkal ci moytu te dëkkeek farlu waxtu jot tey daw ku sàggan akuk càggan di fonk sa tey sa tey ju ñëw def ko niw sas bay ko mbay mu rafet mu sell moo xam ne moo gën mbay mu nit masa bay saxal ci tuubak xalam sag mooy di weetaka muñ te xam ne kuy fay jëf say jëf la lay xalafay saxal ci tuubak xalam sag mooy di weetaka muñ te xam ne kuy fay jëf say jëf la lay xalafay subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin